jëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di bës SN li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek mbir mu doy waar moom moo daal di xew foofa ca diwaan bu Tambacounda ca koñ bu ñu duppee nag quartier Camp Navétane nag ab xale bu góor boo xamante ne rek ay atam ci juróom at la toll la ndox mi daal di yóbbaale mu nekk nag mbir moo xamante ni rek daal dinay xew nit ki démb nag ci altine ji yem ak juróom-ñetti fan ci weeru juillet ginnaaw bi di heures jotee nag boobu lee xale dafa àndaloon xaritam ak ki nga xamante ne rek moom mooy ab papam doon fo ci wetu tool bi ci mbir mënu mel nag moom ci jëmmi boppam rek dafa daal di glissé wu nag daanu ci boobule vallée nga xamante ne rek dafa fees tepp ak ndox ki nga xamante ne rek ña ngi koy woowee ci turu moom ci jëmi boppam rek ginnaaw bu mu daanoo nag la ko ndox mi daal di yóbbaale ak courant bi nga xamante ne rek ànd na ak moom bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi nga xamante ne daal dinañu koy jot boobule koñ nag ci daar daar gi rek la ñu jot a nag seeni ndaw seeni doole laata rek sapeur pompier di ñëw ca boobule bërëb yëpp nag ne nañ commencé woon nañ ko di ko seet ba vingt heures waaye gisuñu dara ndax lëndëm bi nga xamante ne rek lëndëmoon na ko niki tey ci fajar gi nag lañ doon wéyal euh, seet waaye li nga xamante ne rek moom la njabootam di xaar jamono ji rek moo di nag ñu daal di gis ab néewam ba daal di koy amal dëj bu jaar yoon naam sax 48 heures a ngi nii rek euh, kenn tegul ko bët jamono ji nag ay njabootam ci jaaxle rek la ñu daal di nekk ñu fat leen nag boobu leen ndox li ko waral du leen rek lu du taw yi nga xamante ne rek nemmeeku nañ ko ci diirub 48 heures euh, foofa ca